dama jàpp ni ñun loolu la ñu waxoon ñu mën a ànd ñu war a mën a ànd ñooy ànd du ñu bëgg a gagner élection kese ànd après nag mun pour sax gérer pays bi mu nekk ay xuloog xiroog ngaayoo man dañ jàppoon ni intercoalition wàllu Yewwi intercoalition contre nature la la preuve tey da ngay dégg li ñu daan wax ñun li nga xam ne ñoom xamoon nañ ko seen biir ñu koy wax ni tey publiquement dégg nga mon ami Abba Mbaye quand il sorti l'autre jour pour dire que amul lu ñu waxul ci aar Sénégal fekk na écoute tout le monde lui a envoyé un volet de bois <laughs> am déet moom ba mu nekkee ci Yewwi xamoon na ko qu'est-ce qu'ils n'ont dañu yegg si assemblée nationale rek waaw wàllu toogee na la waaw ñu am seen trois candidats trois candidats pour un poste de président de l'Assemblée nationale ça veut dire que ils ont donné le pré la présidence de l'Assemblée nationale d'office à Bokk Yaakaar donc vraiment il faut que tamit nit ñi ñu nangul ñu ni war nañu mën a am position ne li fii nekkuñu ci parce que man du ma bind téere wax ci li ma ci wax ci régime libéral bi dégguma benn yoon fu ñu defee mooy mea culpa dégguma benn yoon fu ñu delloo lu ñu ñu yàqal askan wi ma ne damay ànd ak ak ñoom loolu il faut ñu nangu ko mooy parce que. dans la vie mënuloo envisager une alliance avec le PDS. électorale laa wax. une alliance électorale avec le PDS électorale bon maintenant. jàpp nga ne P le le PDS ne s'est pas absous. on va pas faire le procès du PDS ici j'ai dit je ne peux pas faire une alliance électorale et ñu ko essayé woon ils se sont retrouvés à dire que on a eu tort de le faire parce que on a dû s'asseoir sur nos propres principes euh,